suñu jaar jaar daal dañu nekkee ndaw dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam ndax Cheikh Moussa ni mu yaree la sëriñ bay wax la taalibe wax kon dañuy seede rek seedeel leen ci liñ leen fekk mooy li taxoon suuf doon jooy asamaan doon jooy. mboolem seen mbindeef yi doon jooy ci góor yàlla yooyu la nekkoon te ñoom ba tax maanaam mbindeef yi doon leen jooy kon ñu yëg ni ñun sunu nekk ci jamono jii mooy santuk asamaan waaye mooy santuk suuf waaye mooy santuk jant mooy sant mboolem mbindeef yi li tax mooy fi ngeen wàccee ne Cheikh Moussa yaa rasulullahi sikk neewul ne Cheikh Moussa mooy rasulullahi buñ ne al ulama warasul anbiya yi sax day gàtt boroom xam-xam ñoo doon yonent day gàtt waaye Cheikh Moussa dafa doon yonent bu fekkee xam nañ li yonent Cheikh Moussa yonent la keroog ba yàlla di génnee aadama ak awa ak mboolem seen ñun ñii ba ñu yàlla génnee ci àjjana di ñu wàccee xaale arbita minha jamian baadukum li baadin fa ima yatiyanakum minni hudan faman taba a hudaaya wala yuddilu wala yasxaa Cheikh Moussa la ñu doon joxoñ ñun Cheikh Moussa la ñu doon joxoñ yàlla ne Adama ak Awa génni leen ak seen i njaboot ak seen sët ngeen dem ci suuf bon àggee bon demee ñenn ñi di noonu ñenn ñi wante am na leer guy tukkee ci man yàlla dikkal leen leer googu bu leen dikkalee képp ku topp leer googu noonu doo sànku te doo réer gan leer la xam nga tey ñi nga xam dañuy jàng alquran yam ci mbindi bo boo laajee leer googu ñun la alquran la bari na alquran lu muy joxe boo leen ko laajee ñun la alquran la alquran la ndax suñu borom wax ne al alxawlu sabit lan moy xawlu sabit kaddu gu sax gi ñun la alquran la ta al alxawlu sabit moy la ilaha illa allah li tax moy la ilaha illa allah suñu borom dafa wax ni bi yàlla waxe ne ku topp leer gog non do sànku te doo réer mu ne ko waman engrais an zikri fa inna lahu maisatan danka wa nahsuruhu yawma alqiyamati ahma képp koo xam ni du mooy ngoo man yàlla képp koo xam ni du tudd yàlla yàlla nee na bala moo dee dund gu xat lay dund te buy dekki yawmal qiyaam dafay gumba yàlla dafay gumba yàlla wax ni képp koo xam ne sax na si di ma man yàlla ki sax di tudd yàlla yàlla mu ne ki nga xam ne dumóoy na mu ne kooku bala moo dee dund gu xat lay dund dund gu métti lay dund waaye ki nga xam ne nag sax na di tudd yàlla yàlla kooku dafa wax ni amul benn jubluwaay amul benn jubluwaay du xakk saafikun ci teraangaam nga muy ajjana njamee borom daar bi mu ñëwee lan la indi xaw ma yonent laa xaw ma duma ma yonent waaye lañ joxoon yonent yi xarfan bi xarfin lañ ma jox lañ joxoon yonent yi mooy laa ilaha illallah

لا إله إلا الله هو كلمة التوحيد الذي جاء به رسل وأنزل به كتب لا إله إلا الله بب يرنتب نيو في لا إله إلا الله عندي بب ديرب واتش لا تخنغ واتش مو لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة الإسلام لا يصيح إسلام أحد إلا بمعرفة لا إله إلا هو كلمة الإسلام إسلام كن رباخ إسلام كن دوير لدود نكوك دفع خمبات لا إله إلا الله كون كي لن من يورد والله الذي لا إله إلا الله xam nga lan moy julit al muslim moy ki djeblu ci yàlla wa man yuslim wajhahu lillahi inna lillahi wa huwa muslim faqad tamsaha bi khurwati xurwatil wusaha waaye yaakaar nañu julit moy kan julit moy ki jébbalu baatu julit moy ki djeblu ci yàlla te yàlla dafa ni wax nañ djeblu wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu qabla an yatihil azab thumma la tunfiruna yàlla neena na e yow mi dem dëppal delu nga delu sa borom nga djeblu ci mom lu jitu mbugal di wàcc sa kaw kon ku jébbalul ci yàlla mbugal dana wàcc ci kaw waaye naka la ñuy jébbaloo ci yàlla amul sëriñ bu moom jébbal mbàkke moomul jébbal faal moomul jébbal si moomul jébbal ñas moomul jébbal siise moomul jébbal ki moom jébbal mooy kan mooy ki nga xam ne boo jébbaloo si moom mu jébbal sa njébbal gi yàlla kooku la yàlla topp leen ko wa tabi sabila man anaaba ya topp leen yoon bu jëm si man yàlla wa sabi sabila man anaaba ya topp leen yoon bu jëm si yàlla ban yoon moo jëm si yàlla yoon bu jëm ci yàlla kookee doomu aadama la doon nit lay doon waaye nit koo xamante ni yitteem du fenn furut fa yàlla comme Serigne Touba fi ko yonente bi fekkoon muy jàngale taalibe yi wër ko muy jàngale alquran ak xam-xam yonente bi dikkal ko naka rabbi asxaabaka bil himmati walaatu rabbi huma bi darsi Serigne Touba ne asri fanaha wëlbati leen alhimama yi tey buñ ko wëlbatee fi ñu ko jëmee lil xaq ci ci ci yàlla mi dëgg laa xalta fi bu leen gestu mukk lil xalq mindee fii serigne touba ne eh am jang jàng baax na waaye lu am gem am na lu gën jàng ñu ne ko mbàkke lu gën jàng mu ne fexe bu malaakee di waxtaan ca almalaul ahla ngeen koy dégg fexe bu bu yàlla bind xalimam nga ca lawul mahfous ngeen dégg biriw ba loolu jàng mayewu ko loolu jàng mayewu ko ci njàng karoog ba murit du sosu kaddu dellu ci yàlla la mu ne minallaahi illallaahi ay na ci ci ana jaam bi na ma ci mbir mi dem ci yàlla la sëriñ du askan boo sa jébbalu ci ko sant mbàkke te agul ci yàlla xaraam na nga jébbalu ko sant si agul ci mbàkke xaraam na nga jéggalu ko sant ñes agul ci yàlla xaraam na ndax lan njébbal yàllaa ko moom aslamtu nafsi lillahi rabbil alamina aslamtu nafsi lillahi rabbil alamina aslamtu nafsi ngir nit amul fenn amul fenn amul fenn kon ndekete jébbali yàllaa ko moom diggante sëriñ sëriñ ak taalibi la ko sos mooy àgg ci yàlla sëriñ boo jokk te àggut ci yàlla matul sëriñ bàyyi ko fa serigne bo jokula te mun lay yóbbu ci yàlla bako fa nit bu xamul yàlla limi muy xam xoola xol ter bi la yàlla jox li yàlla bindi ni mu bare waye kan la ni moy sama kouta ci kaw souf représentant je sur terre c'est l'homme inni jaa'ilu fil ardi khalifata ki la def lolu ki la def lolu boko xamul kan mo koy xam wala mbaam yeeg fas yeeg nag yeeg ñokay xam dedet nit moy xam yàlla ñu la xam yàlla sokay koy ngani dedet te yàlla wax ak bopam وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني بند ما نيت اك دين لي نيو ما جام بو ياكا جانغ بي بو فكه نا جانغ بي خيدو كلاس دا نين كو جابي كو تي دي دم سفرا جانغ صاح بي دا غاي جيخ سي يالا با جانغ بي دي جامو يالا با غاي ديف موي ليك دي جامو يالا غاي نان موي جامو يالا غاي سي موي جامو يالا لو مون ديف موي جامو يالا لولو موي ما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني مي دا غاي ديك نان ليغي اك جامو يالا ديدت ليغي با صاح جامو يالا لا واو سي بودو جامو يالا سي بو sey mala la li tax ñu nan day takk sey ci jàkka ngir ñu jaamu ci yalla loolu lañu wax de dañuy takk sey ngir ñu jaamu ci yalla kon ban jaamu yalla la fexé bo àggut ci yalla ngay def bokkaale yalla la kon dañ ñu doon sédé sil wallahi dañu tollu fi wota ñu ma xaw mané ko ma ngi jaar bi ma ngi toll université mu ne ma dañu nek nekkon ci kuréel gi mané kon xama jaar dama doon jaar seedal leen waaye lii di wax munuñ ci yok dara munuñ ci yok dara munuñ ci yok dara li ñu Cheikh Moussa jox nak buñu gisé lu gën loolu ñu bàyyi ku topp loola li ñu Cheikh Moussa jox bu ñu gënoon lu ko gën ñu bàyyi li ñu Cheikh Moussa jox topp loola ndax topp nit yàlla lañ topp yàlla nag boo koy topp atiu llah wa atiu rasul wa ul amri minkum topp lañ yàlla topp yonent bi topp borom mbir yi yàlla foo koy topp foo koy toppee yàlla ci yonent bi nga koy toppee yonent bi soo koy ci ko koy toppee ci borom mbir yi mooy sëriñ bu mat sëriñ moo tax sëriñ Tuubaa ne waxta bi rijaali xabla suuba wala tusaahi xumran aw saa raqaba nee na ab sëriñ bala ngaa jébbalu ci moom da nga koy seet li tax ñu koy seet ndax àgg na ci yàlla bu àggee ci yàlla jokkal te àgg xam da nga dem ci yàlla waaye bu àggut ci yàlla boo ko toppee doo dem ci yàlla kon kon li ngeen yor mooy dëgg kalimatul xaq mooy laa ilaha illallah kalimatul tawhid mooy laa ilaha illallah kalimatul hurriya mooy laa ilaha illallah kalimatul ixlaas mooy laa ilaha illallah fariqatun baynal kufri wal islam baat bi nga xam ne mooy tàqale julit ak yéefar may baatu laa ilaha illallah jamono nag jaam yi fu toll nii ki ñu def muy nit mooy ki wan ginnaaw àdduna topp ki wan ginnaaw yàlla topp àdduna kookoy nit dama ni lii ngeen yor tey wallahi azim buñ ko tegoon teg Macky Sall nii avant muy jëpp président ñu gindi ko ci laa ilaha illallah ba mu wér xam njëriñu laa ilaha illallah àdduna ak ko ci maam nguur nii mu bàyyi nguur topp laa ilaha illallah ba ci Barack Obama mboolem président buñ ci gindi si la ilaha illallah mu xam ko avant mu jot nguur gi mu bàyyi loolu topp laa ilaha illallah li annahu bidayatul wilaya wa tarkuhu nihayatul hawaya asalaamaaleykum wa rahmatullah suñuy jaar jaar dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam daan naa wax ne su ko xaaritoon jar danaa ko am